waaw. Ndiaye waxal waaye tam dañuy waaw man maa leen woolu woon. woote bi nag wooteeb jàmm la xam nga waxkat boo tëjee gémmiñam rek da ngay lëmm xelam te mbir la moo xam ni moom ci gàttal sax daan tayuma ko waaw ndax moo daf ma mën ma ne ba fëkk sam xel. waaw ba jàmm la. waaw jàmm la dama ko dama ko takkal soxna. waaw. Ndiaye koo takkal soxna. Mor su baax soxna su yiw soxna su am teraanga te yàlla mënale ko boppam ba pare na muy saw xeet sa mbokk. sës ci yow rek te ma gis ne ah amagoo teraanga ndax teral la gun la yow liñ la gone yi teral la gis naa ko moo tax nag ma xam ni kee bis boo ko gisee xam ni am nga golo te loxo ba daa gaaw xoolal ni yaay yaay ci li mu def waroo waroo koo def hmm. waaw waroo ko def sooy takk soxna da ngaa ñëw laaj ñu ba pare ba yaay booy li sama nijaay li mu def du yoon suy maye na ñëw laaj. ba pare eh eh, eh, eh ku muy laaj tëjam sa gémmañ yow. tëjam eh bu ma xool bu ma xool. dégg naa li nga wax waaye yaay baayam waaye ku am kër baay am nga kër ndey duma ci teg dara waaye boo génnee nga wool ma ko. waaw kay nga ko yow wuyu day def day dof dof rek di dem taxi ci àll. moom daa am daa amagul jigéen bu eh sama jabaram koy tara bariwul de demal ta bàyyi ko fi mu tëdd. bàyyi ko waaw waay gis nga kii samay pexe su jugee day génn kër gi. génn sa bàyyi kër gi. mais lu muy def nii pour lan la xam nga dafiy ñëw influence lay indi si kër gi sama jabar man moom rek. dafa mu toll li mu fi wax lépp sa jabar ngay tagg. kanam ku ñaaw gi wuy ci man la nag hmm. waaw ci man la ba jàmm waaw jàmm du jàmm xam nga waxkat day tollu foo xam ni boo ko tëjloo gémmiñam rek hmm. da nga ko sonal man weeru koor bi yëpp hmm. ndax suñu yëf yooyee. yëf yooyee. mooy suñu takk ba. waaw suñu takk gi lu mu wut ak saa saay. daa ko ko wax. kan ma ko wax. man maa ko ko wax. loo ko wax. ni ko moo takkal naa ko soxna. waaw yow joomal jinne yow tamit yow yow mënoo téye sa làmmiñ bi yow nga yaa xoolee eh déedéet wuy ma tooñ nga ma de yow loolu war nga ko wax sama yaay ba pare nan ma wuyul pare nga ci. ah mënoo mënatuma koo denc. waaw mënoo koo denc doo ñëw ci man nga wax ma ko. yow xam nga ko ki ko xamul kay laa koy wax waaye man xam nga ko ba Ah. kon daan nekkoon sa biir beeg sa gémmiñ gi di wor wora motax ñew yow nga xool legi jeex na man man man man may ando ce problème man. ma am jàmm man man mu ko ma am jàmm. waaw d' yow doo taw fi mu eh eh ya eh ay ay ah ba doon bàyyi ko damay koy ay may koy maa la bàyyi ko bàyyi bàyyi ko. Eh. yow koy ko la jaw. waaye yegguma la ak yàlla de. yow koy ko la jaw. ba yegguma la ak yàlla. yow man de ko la jaw. waaye ko rek. yow sa doom ngay xeexal di ko ko la jaw.

ak sa kanam gi yow barke rasulullah daam lo metti man ko mal lay metti yo eh dug sil bismillah Werenga, oh. werenga torop. Mana malah bayar sama orang sama lah sama ya, lay Ya. Ya. Hmm. man du def mukk lo bëggul te duma def mukk lo xamni ando àndoo ci waaye li moom daf ma recc. Ñaaral bi ma tak tak suuf Billahi daf ma recc. Bal ma ak te bu fekke ni loolu la toll ma dem woowi Abdou Azignan mi nga xamni moko témoin ak sama papa ñu dem tas ko xoolal xoolal da nga def lu la neex sama papa nena ya ko manipuler. ya ko manipuler yaa ko manipuler. Eh! bi. yaay nan fi wax li fi ne. Eh, la ya koy wax. jomal ne la lol eh eh bu ne fi jomal junne yo say rongoñ fer ci len lolou dama contane kan da def lu neex. lu eh eh yo kii kii. la wax yow kii li muy def ni la. yo kii li muy def ni la la. kontaan. yow la wax nii yow eh, no ma contane ndax te sa papa nena? ci xeet wi nga tak ah ta ko am fulla am jom am diine nga tak ta jonga ma nga takit ta man keur gi dama fay yag ta musuma deg ndiak deg nga li motax ma kontaan ci nga lol ya yaa woro ci ko sam sama ben jabar la eh, ben jabar la am eh, eh, eh. yow mu dama la soo noppi ah damaa xam ni réew li ngay takke jabar jor ko ben jabar len bo le ñaar do ci gëna jaamu yalla ken dal me melni per mm-hmm. ñaaral xartu mm-hmm. ci jëkkëram ma tak ci xet ji hein ah, di def ay ciéb yu neex li nga xam ne moom nga bëgg moom lay togg ceebu jaga moom la lay defal léegi yow lan mooy sa problème yow. Eh, problème am lenn la. Hmm. bu ñu naanee ndox ak jàmm ak salaam. Hmm. moom maa koy takkal ndax te xam naa ne amul fi taatu muus la yore du takk. Eh, eh, sama yaay sama yaay waxee da ngay déglu tey appliqué da ngay takk. takkal waaw. wéy sama ndey ay rekago kat ke ndek rekago tat ke ndek rekago gon gon gon gon rekago ki jël ki jël eh sa loolu sa jël ki jël googu bokkoo ci waaw bokkoo ci eh, eh, eh. man ay jabar yooyu ma ci dugal de bu ma ci dugal de bu ñuy naan ndox ak jàmm ngay takk ta ci xeet bi comme ni mu takkee noonu da koy dóor yaay xam eh gun tat gun tat gun tat gun ay waay rabax rabax rabax ca ci jar jël yow sama armoire yaay bii ma jëndal bii ma jëndal sama yaay. bu da ngay bëgg yow yàq ñëpp a kontaan bul yàq lii. Modou Balakoe bàyyi benn mbëkk dugal. yow